ñu ñëw ci neer nettalib téeméer bi ak juróom fukk ak yent sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaaralahu lahu neena sëriñ moor allahu anhu fu waxe sëriñ moor rek sëriñ moor maan ant sali ci jublu jàngal na mawaahibul xuddoos ñaari doomam yii muy sëriñ muy sëriñ seex coro ak sëriñ afiya loolu dañu xamal ni sëriñ moor allahu taala anhu wóolu woon na xam-xamub sëriñ bi xaadalahu laahu lahu ba tey loolu danañu xamal ni topp cosaan wala su ko def waaye li ñu war a def mooy topp lu baax ndax sëriñ Mor radiyallahu anhu nekkul naan sa noosi bi sa noosi bii nga xam ni moom laa jàngoon laa jàngale daa xool ni way sëriñ bi moo gën a yomb gën a barkeel mu bàyyi bee di ko jàngale li ko waral sëriñ bi booy jàng ay mbindam sa tuyaaba yàlla rekk a koy xam te lépp ay leer la yoo xam ni day dajale njariñi téere yépp xoolal bayit wi madda lësi xad ansalat madda lësi xad ansalat dafa tira lii nuuraha fala yakunu fatira